waat nañu mu war a nekkaat biir Pikine c'est bon nga jëlee ko Pikine war ko tegaat biir Pikine loolu lan lay def ci yow. waaw am loolu du problème comme li ma wax sànq rek quatre ans ma am sant boobu du suma coobare xam nga tey yàlla dafa defoon ba dem nañ fay wér alhamdulilah reprendre nañ suñu entraînement bu yàgg parce que suñu loolu ñu am combat ñoo ngi dem di ci jàpp pendant que Pikine laa ko jëlee dugaat Pikine loolu du problème lamb naan di nga am ki nga xam ne sa adversaire fu muy fu muy gën a bëree. te man sama souhait loolu la woon wax naa ko une fois du benn ñaar tey ay Ama Baldé ay Boy Niang ñeneen ay benn génération lañ su ma leen déggee mu ci làmb benn at wala ñaari ay génération lañ xëy na maa leen bu bëree moo tax xam nga mais ma gën a dara ba tax na làmb ji du Modou Lô Modou Lô Modou Lô Modou Làmb ji dafa war a ubbeeku te sama bëgg-bëgg loolu la woon. waroon ñaan suma yàlla mayee koon bi ma kër ubbi lamp bi waaw lu ñuy wax suñu mor lu ñuy wax suñu rakk rek ñu bëri ñoom lamp yooyu ubbeeku <laughs> di ko wax kayfa haaluka taarama raaytuka walaakin taarama samituka afdal min ar-riyaadiin yaa ah, eh, sëñ bi waaw en tout cas <laughs> Modou Lo eh, tey nga ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro 2 mën nañu ne depuis nga eh, feeñaat daan Balla Gaye sa staff wala boobu leen sa staff ñoo jëkk ki nga xamante mooy Boy Niang déclaré pour mën a bëri ak moom te dañu gis ne toujours fu Balla Gaye échec rek Modou Lo day ñëw bëgg fa réussir comprendre bu baax a baax Boy euh, bi euh, fi mu yàgg daal ci ci ci lan moo waral loolu bien vrai que ne yéen gi dem da ngeen di waxtaan ci seen biir euh, ak nu mu demee noonu lu tax boo toujours Modou Lo day sawar ci koo xamante ni dafa daan Balla Gaye ndax yaa ngi si bàyyi xel

bu bu ñu leen joxee booy ñaar ñu jël ko. parce que man tollu ma ci làmb fu may toppee benn bër wala di si benn bër wax dëgg naa ba tax na tey dafa bëre def exploit bisimilah nit ñi ni làmb bu la rek mais pas may taxaw di laaj booy ñaar wala sooy sax non dañ leen ci laaj xam ñu ci toppee d'accord mooy loolu te combat la sax quoi moo tax dafa def ay preuve am ñun tamit ñu ngi bëri ba am fu ñu yegg làmb war a lu tax ngay sawar ci Fouba la ngay ese. non yaa yaa ci bàyyi xel man bàyyi ma ci sax yaa toog rek ndax mu naan toog meewul laay gàll. bàyyi ma ci xel bi na trop euh, baal yaa ngi bàyyi xel. waaw maa ngi ciy bàyyi xel mais dama gis benn affaire boo xam ne yéen a koy wax il xam nga ku nekk moom am ni ñu ko neex waaye àddina ñun ñëpp ay jullit lañ te ñun ñëpp dañ bu ñu sañoon dañuy wooy oustaz parce que ñun dañu fekk ñeneen man da ngay man da ngay gis ni boo yaa man nitu daara la man su may ay maam su ma ay nijaay yëpp ay xaar sax la lañ donc nag man nitu daara donc diine dafa am solo diine avant sport sport bi après la war a ñëw donc parce que bu ñuy woowee Modou Fall wala ñu mën koo féete rek diine bi dafa mel ni ñun bokk nañu ñun ñoo ko gën a bëgg diine bi ñu dégg waaw ñun dañuy dañuy dañuy jaamu yàlla teg ko ci yoon xam ne lépp lu jeexal suñu borom moo fi nekk donc ba bëgg ñu bàyyi xel bu baax a baax ñoo ko dàq jógee fii bu la yàlla loolu la demee beneen bi mooy comme li nga wax rek yàlla dafa dogal nga jógee ci Balla moom Modou làmb moo ñu boole rek làmb moo ñu boole ñu bëri boo paree rek boo bëree pare rek dafa Sénégalais yëpp ak amatul làmb yëpp dañ bëgg suñu combat parce que combat bu neex la moom yëpp ay bërikat lañu waaw moom moo ñu tàkk bëri sax nañu naan xel lañ ñuy jàng bëri waaw waaw te yàgg nañ ko gis muy bëri xam nañ buñ bëree muy wuree na neex xam nañ combat bi dañ xeex nañ bëri amatul nañ combat parce que loolu la ñuy xaar fii man xam naa ko bu baax de xamante ne xaalis bi xaw ma ne mën ba xam naa ko bu baax. waaw gars yi dañuy wax ne combat bi combat négociation la ñuy bëri dañuy xeex incha allah moom la ñu yóbbu di tànn incha allah. ayca comme maanaam négociation yi yàggoon euh, ci sa côté. waaw comme noonu la rek xam nga booy ñaama dafa am staff am ay kilifa am nañ sama ginnaaw boo xam ne Magal mën na wax ni sax moo alal njaay négociation bi dem na ba avancé bañ finalisé tamit sax waxuma ci dugal ma ci sama kàddu parce que nit moom doo joxe kooku di rocc laa min daal maa ngi nuyu ñoom Abdou Kane bu baax famille Kane yi di nuyu Kébé mi toog di nuyu Tata Kane yi di nuyu kilifa yi nga xamante ne ñoom bëgguma ñu tudd seen tur te ñu nekk rek di jàpp bu baax a baax yaakaar boo ñaan man leen nuyu bu baax gis naa taxawaay bi yàlla moo def loolu rek négociation bi sotti woon ñu nuyu suñu papa laaj ma suñu bañ ma dox ci médiation amul magal boobu dafa commencé dugg na yow yow ba ci rek dem ci marché mbay waaye moom bu ëllëgee rek mooy teg ci taal bi noonu la bi ñu koy nuyu moom bu baax a baax di suñu papa marché mbay ak suma mbokk jiwal yëpp di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay mais loolu rek ma taxoon bu ñàkk mais amul benn problème ñu lay xaar dañu bëri rek mooy suñu métier incha allah. alors Modou dégg nga ah moom dèjà lancé na hostilité yi nee na combat bi ndax xam nga li amateur yi xaar ci parce que man kay wax léegi qualité ñaari mbër yi moo dem ba ba combat bi ñëpp yaakaar ni ça va être l'un des am nañ ko macha wax naa ko léegi bu dee xeex mën nañ ko wax naa leen buy dugg day xeex buy génn day xeex bu jàppee day xeex bu koree day xeex wax naa leen ni Boy Niang avant de devenir lutteur au plus bas âge la commencé xeex boxeur la jëkk a jàng kon bu ñu xeexee bu neex bu ñu bëree bu bu ñu dabee bu neex. donc combat boobu moom lay wax ba léegi ndax xam nga li ci amateur yëpp di xaar. waaw ah, mais xam nga xam nga wax nañu wax tay tay lu parce que kenn jëloon fi avance pour lu may wala ay négociation. affaire ah, yi moom saa yi. waaw du yomb sax incha allah. waaw du yomb sax bu baax la bu wóor waaw maa ngi def ci profité parce que dama ci dugub bi dafa am lu mu fàttewoon si moom benn femme bu génn àdduna tey bi ñu ko wax fi ma toog fii nii muy Mariam Diallo ndeysaan yaayam dafa génnoon àdduna même pas vingt et un mu dem ci tey su ma daan bëri chaque fois lay jógee ba tey ñëw ñëw ma ko sànni bu génn àdduna ñu ko jaale ay bokkam ñu ko jaale waa Mauritanie yëpp di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana moo baax loolu yëpp ñu ci profité muy waaj am tamit génération xare ci par jour président muy waa Mauritanie tamit ancien protecteur xam ne ñu ko jiital combat bu war a neex la qualité yi nga am ak qualité yi booy ñaar moo tax nit ñi am espoir que combat bi moo mën a dàq ci combat yi narul am déception. waaw man dama sawoon si bëri bërikat. man ñaari bërikat bu ñu dajee lamb day am day neex. ñaari xeexkat. waaw kay moo tax kenn xalaatul ñoom. waaw mais nañ ci yàlla may ndaw rek incha allah. mais Malick. xam nga combat bi dafa jaay boobu wax moom présentation la te dañu nekk ak si ak suñu ay nawle suba mu nekk jour ouvrable rek li ñu liñ bëgg a def mooy ku ci nekk am na ñi ngay woo mooy ñaa am na ñu muy woo bii première présentation bi nag mais yeneen ak yeneen ak yeneen bi ñu ñëw te bu ñu nekk drapeau président Macky Sall lu du yomb nekk na événement boo xam ne événement bu rëy la booy ñaa ak Modou Lo bul sol dinañu xeex dinañu bëri parce que Modou Lo mësut a yàq làmb bu dee bu dee ci làmb dañuy wax Modou Lo mësut a am carton jaune ci làmb Boy Niang dañ ko tuddee l'ambassadeur de la non violence kon mun naa wax ni keroog moom ba muy bëri ak Balla Gaye même marche yi marche yi nit ñi di jaar dañ fa toog sa carte wala nag kuy bëri ñaari mbëru réew nag bu ñu dajee bëri ba naaw Boy Niang am nga combat léegi nag Modou Lo aussi xam ne am na ko ça c'est clair kon ñu bàyyi leen rek xam naa ni Cheikh ñoom ñu euh, def le mot de la fin mais aussi comme ay leader lañu li nga doon wax sànq daf leen concerné ñoom ñaar parce que tey tolluwaayu réew mi ah kenn ku nekk war nga mun a àddu woote jàmm ci réewum Sénégal ndax bu ñu dee organiser làmb sax jàmm moom moo fi am moo tax ñuy organiser làmb ñoom ay porteurs de voix lañu ay leaders d'opinion lañu. war nañu mën a réew mi ak tolluwaay beeg xë xëj xëccoo beeg tension bi fi am kenn ku ci nekk def appel ci ñu dal ci réew mi jàmm am ci réew mi bu la nit ñi déggalee loolu yaakaar naa ne moo arrangé nit kenn ku ci nekk war na lancer message ci loolu balaa ngay woote ci làmb ji parce que am na yeneen ndaje yu ñu war a def comme je l'ai dit au départ lii du face to face bu nga xam ne dañuy taxaw naan maa lay def nii dinaa la doon dinaa la duma eggaguñu foofu tegante dënd eggaguñu changement bi suñu ba ñu dëkkee réew ñun ñëpp nekk bi suñu lépp nekk bi suñuy waajur ak suñu njaboot lépp nekk bi day jar bu amee lu ñuy wax lu yoon ku ci nekk bu mën a ànd ba ànd parce que tey lu am yow da ngay am tawam. parce que am na ñoo xam ne yàlla lu mu tolloo mooy leen tàgg bu wax bu ñu waxee sax au lieu fukki personne dinañ leen dinañ leen déglu li wax rek comme li ñu waxoon réew mi Sénégal un pays de la teranga lañ wax dëgg jàmm am na yoo xam ne wax dëgg yàlla mosuloo gis mosul am te ñaanu yàlla moom fi comme ni nga wax tey bu jàmm amoon dañu toog fii di signature jàmm dina lépp xañ te ay réew ci boobu borom li nga wax ba tax fi dana laa ci ay dem ci bopp borom tey bu ñu paree ay ñoom di ko daal sax mën na ci bëgg a génn duñ ci génn ñu ci seen yoon nekkul it ñoo mën a leen laal te boobaa arrangé wu kenn di wax muy yi nekk ci dëkk bi moomuñu réew mi dañuy dem bàyyi ko fan. fii toogaan léeg-léeg nawet bi bu yàlla rek mënu jeex boobu ñu yëpp dafay jeex ñu fi nekk ak ñu nar a ñëw yëpp lépp nañ ko def ci jàmm ci fair play yàlla moom mooy joxe ñu wóor. nguur yàlla boo ko joxee mais ànd ak dal ànd ak dal ci la lépp xaj ci la lépp xaj dañaan daal sax ne yàlla yàlla def jàmm di nuyu sama waa Tullaro di samay waa ñu jógee ñu wax Fandène ak waa Taïba Ndiaye di nuyu ak waa Marcel di nuyu monsieur le ministre Amadou Ba suñu ministre premier ministre nekk fi pour Sénégal yëpp di ñaan liggéeyam yàlla na ko yéen bi boobu président yéen yàlla na ko def toolu xam muy nuyu Cheikh Oumar am di nuyu Aliou ko fay di nuyu sama père rek fa laa ko ci doom père gërëm ko sama bopp la di ko nuyu am di ko di nuyu lool sama am sama sama staff bi ma àndal yëpp nuyu masawu tamit ñuy suuf parce que ñi àndal amaana ñi ne ci suuf yoo ëpp te ñu bu ñu bu ñu sañ bi fii fekk amaana xaaju fii di nuyu tamit Ngagne Sagara Diop di président di coach basket bu Sénégal ñu am ci compétition yi jëm leen ñaar yàlla may ci ñoom pour Lissi Dieng ah ñoom Youssou Ndoye ñoom wàllu déformation encore muy Pape Alioune Ndiaye di nuyu ñëpp ku leen dangay bu mënu passé yaa combat yëpp nag di leen ñaanal yàlla may leen tam waa énergie waa jàmbaar fépp ñu ko nekk passé na combat yàlla yàlla ñi amul combat yàlla may leen combat waaw Sénégal yàlla def jàmm yàlla yàlla def jàmm mais ñëpp gërëm ñëpp jërëjëf. booy ñëw l'ambassadeur de la non violence yaakaar naa ni bu wootee jàmm war na ko woon tamit. waaw noonu la ma ne Sénégal moom ba lu ñu waxee rek dëgg jàmm la te ku xam ne rek jàmm moo gën lépp te Sénégal moom ba lu ñu waxee rek ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk waay. le fait que mun nga fan fu la neex ku ne am nga droit fan fu la neex waaye ñun moom dañ nekk ñoo xam ne ay leader d'opinion lañu fu ñu nekk rek dañoo war a wax pour Sénégal mais pas pour qui que ce soit lii ñaan mooy képp rek koo xam ne yaa ngi ci politique bi rek mun nga def sa métier comme sa métier la comme lu ko waree mais ñu sol population bi xam ne Sénégal tey moo ci def ay nenoo di def loolu la ñu jàpp élection bi ñu def ko kuy gagné gagné gagné bi dem parce que comme ni mu mën rek fii moom benn nguur moom du jeex ñëpp dafay jeex suñu borom rek moo fi nekk ak loolu moom mais ñëpp da ngay toog bu paree keneen rek loolu moo fi nekk donc waru am benn violence affaire yi jotee rek ku ci nekk def ki nga faral di kontaan moom yàlla moo xam daal lay doon ndam mais ñu bokk ñu ñëpp bokk ndey bokk baay ñu war a yëkkati tension yi daal ba mu yegg fenn si ñu xam ne ñu population bi lañ fi nekkal nekkul fi kenn parce que dañu am relation ak ku nekk ku ci nekk da nga ko yemee relation fraternité ak yow. organiser ba seen mboolu ci wooyee dañuy dem teewal parce que bu ñu amee bés nga jàppale ñu dañuy teewal loolu ci cas yëpp la waaw bu ñu gisee ñu ñëw ci benn cas rek bu ñu jàppale ñoo ñëw ci benn cas parce que cas boobu dañu fan bàyyi beneen cas déedéet benn cas boobu tamit am na ay nit yoo xam ne bu ñu amoon bés bu ñu wooyee dañuy bëgg ñu teew dañuy teew parce que bu ñu amee bés dañ leen woo ñu jàppale ñu parce que mbër mi dafa am koo xamante ni comme ñu wax ne ñaa ngi gis moobi lim na man damay jëm tamit ñooñu ñoo ñuy jàppale waaw ñooñu bu la jàppale ba pare am bés woo la dana dana yàgg ak fu mu mënti nekk loolu nag àdduna du daw xewal ba suñu doog a xoolal sëriñ bi donc nekkul parce que dañu dem parce que faral duñ teewale noonu parce que dañ dem parce que suñu nit la am fu mu taxawal ak ñun. beneen côté bi tamit bu demee noonu dañuy dem beneen beneen côté tamit noonu loolu Sénégal yi xamee noonu fu ñu dem nag parce que dañu am kooku koo xamante ni boo ko ëpp nit ko moo nekk fondateur bi moo nekk suñu nit rek seen ëllëg dara am ñu wooyee rek ñu dem déplacé wu dëggal Sénégal yi ñu waar suñu bopp rek noonu la loolu bu la ma ko bëggoon sànni laaxee pour message bi dina nekk ay affaire yu bëri pour gars yi xam bu baax ku ma gisee fenn rek man xale laa waaye dama fure dama fay la te lu ma am rek man maa ko joxe sama bopp ba ma ne ma def di ñaan teg ko si moom def ci baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñu may jàppale nag di nuyu waa Thiès waa Tivaouane waa Sambé waa Niodior waa Diofior waa Koudiadiene atumane bu baax waa kër Cheikh Massa Sarr ak Limane di leen jox seen waa bu baax a baax a baax waa kër Cheikh Oumou Mame di wax ni combat bi taxaw na ñu ñaanal bu baax suñu bopp defal ñu bu baax su waa kër maam Cheikh Ibrahima Seck maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax xalifa bi Cheikh Baye Cheikh Sakho duñ ko fàtte bu baax a baax ak njaboot bi yëpp maa ngi leen nuyu di nuyu sama papa muy Diop président BDS sama papa bu baax maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax